le xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla mu gudd fan loolu te ànd ak wér di wax ni lii ñu fi dajale tey neexuñu bu ñu sañoon du am ku ne xam na ni Tivaouane ci diine lañ ko xam ak ci njàngale ak ci référence waaye dañ ñoo seetaan ba mu ëpp hôpital maam Abdou Aziz Sy Dabakh bii ñuy waxal tey tur kese la dese amul dara lu fa am moonte de noon génn rus maam Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh nee nañu bañ ko tijjee hôpital bi mu dawal otoom ba romb ci tali bi daan ni dégg naa fii de mën lañ ko duppee yaakaar bi ñu am ci man ba jox ma tur bi yàlla nañ ci gis lu ëpp seen njort waaye ñoom trahir nañu kon maam Cheikh Al Hadj Abdou si Sy Dabakh li ñu fi dajalee tey nag mu jige ci suñu frère maam Abdou Hamid kan di ko ñaanal yàlla suuf oyof lool ci karam dafa def li nga xam ne mooy accident. treize heures et demie ci watu sapeur bi la accidenté ñu évacuer ko ku accidenté ci watu sapeur nag ku ne xam na ni teel nañ la évacuer bi ñu ko indee hôpital ba bi ñu koy dugal bloc opératoire dañ ko négligé négligé nañ ko pendant quinze jours maam Abdou ci boppam moo doon jël téléphone am di vocal di génne vocal yi naan sonn naa fii ma nekk ah, Serigne Moustapha Sy Al Amin rappelé na ko keroog bi ñu jullee maam Abdou Hamid Gueye loolu dafa ñaaw hôpital maam Abdou Aziz Dabakh bii boo génnee fii am na ak atelier mécanicien bu fi nekk juróom ñaari ambulance lañ fa gaare yoo xam ne hôpital bee ko moom defaruñ ci benn boo duggee ci hôpital bi fekk fa ñaari ambulance ñu paanal juróom ñaari ambulance bàyyi ko fële hôpital du ay sëkk seetaan bi dafa doy la bëgg hôpital ma Abdoulaye Sy Dabakh boo demee ca maternité ba am nañ fa keesu avec boo xam ni seen jouru avec bu jotee boo doon am doom bay dee duñ la faale ca biir maternité ba lañ la ñuy nekk di seetaan télé ak di avec di avec boo duggee fa nga xamante ni nii mooy urgence ba directrice na dem bi nekk hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh rus nañ faa war a sax tëral nit ku génn àddina waxu malaak di fa tëral malaat bu feebar bañ toll ci urgence tilim na xeeñ na xasaw na bëri na ay mbóot bëri na ay yoo hôpital maam Abdou Aziz Sy Dabakh ñun de dañuy gis yeneen hôpital yi boo amee malaat même bu sa malade génnee ku ne xam na ni hôpital moom ak génn àddina sax ñoo ànd waaye sa malade war naa mën a génn àddina nga wër médecin bi ko doon seet ba gis ko saafonteeg moom jàppanteeg moom échangeanteeg moom numéro ci taxawaay bi mu la taxawoo waaye hôpital maam Abdou Aziz Dabakh boo fa dugalee malade bu génnee ak bakkan da ngay mer bu génnul ak bakkan da ngay mer dañ ñoo seetaan négligence négligence totale technicien yi. hôpital du ay sëkk feebar faju la ñu bëgg. ñu bëgg. beneen bi ci des mooy ñun bi moom ba mu lakkee ba léegi kenn defaatu fa dara hôpital maam Abdou Aziz Dabakh kese mooy hôpital bi nga xam ni boo demee France sax tudd fa tur bi xam nañ ko ci lu ñaaw. bañ nañ ko ba journaliste yi bu ñuy tiitre dañ naan encore l'hôpital Mame Aziz Sy Dabakh de Tivaouane encore boobu la ñu bëgg mu dañ hôpital Mame am rek newul ci Sénégal lan moo ñun lan lañ leen mu ba mënuñu ñoo respecté direct beneen bi ci des mooy da ngay dugg ci hôpital bi duggee fa garde poste garde ci buntu bi sécurité jékki-jékki doon bracardier békki-jékki doon accueil jékki-jékki di tabax wala ngay rewle loolu dafa ñaaw beneen bi ci des mooy madame la directrice dañ lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi ci jëmmi Cheikh Seydil Hadji Malick doyal nañu na dem vous avez démontré vos na dem na dem na dem a dem a dem na dem na dem na a a dem audit bi nag wax dëgg yàlla taalibe boo ko bàyyi wul ak yalwaanam waroo ko mën a jël na nañ ci hôpital bi plus de xaalis soxla plus de deux cent millions ci li ñu yëg ñun li ñu yëg li ñu yëgul nag xamuñu ko ñoom ñoo ko xam te yowmal xiyaam dina taxaw yawma tarawnaha tazalu kullu murdiatin amma adaa wa tadau kullu zaati xamlin xamlaha lu nit def tey di ko defaat ci kanamu yàlla lu nit wax tey di ko waxaat ci kanamu yàlla bi ci des mooy médecin bi doon def point de presse bi bi maam Abdou Hamid Kane génnee àddina c'est un médecin na ne mérite aucun honneur conférence de presse mooy de deux minutes la def nanguwula sax tudd turu maam Abdou Hamid Kane te mi ngi ko gis ci texte bi nanguwula tudd turam te moment boobu ñoo ngi rob suñu doom bi ñu robee maam Abdou ba pare romb di dem ca kër ga ñu génn ci parenteer yi di ñuy yëndu di ñu wax lu leen neex loolu dafa ñaaw beneen bi ci des mooy médecin boobu doon def déclaration bi bi mu paree dafa doon reetaan daan ki mu dendal noo ma gisee ñoom ñaar ñuy reetaan loolu dafa ñaaw ñu lançons un appel beneen bi ci des mooy beneen bi ci des mooy nañ ñu wax lan moo nekk ci intervention chirurgicale bi ndax hôpital Maam Abdou buñ lay opéré da ngay dox ak say tànk dugg boo duggee buñ génnee ne dee na yaa problème bu fekkonte ni dañ fay dugal koo xam ne dafa sonn lool buy dugg sax génn dee ñu ne garaawul waaye buñ lay dugal maam Abdou bi muy may leen ñu maam Abdou maam Abdou bi muy dugg ci hôpital bi moo dénkaane téléphone am ne maa ngi ñëw dugg génnaatul te bari na fa ay cas yu mel noonu ñoo ngi lancer un appel à tout le gouvernement dalee ko ci bopp bi muy le président de la république monsieur. Bassirou Diomaye Diakhar fay ak son premier ministre Ousmane Sonko ak la euh, le ministre de la santé ak oto honorable yi ñu fi nekk yi nekk ci dëkk bi yëpp honorable député Massata ngi nii bàyyi activité am yëpp koy sant di ko gërëm ndax Tiwaawan moo soxla bu solution amul bu solution amul bu solution amul nous allons passer à la vitesse supérieure vitesse supérieure bi nag moom duñ leen ko wax dañuy bàyyi ba yegg ca def ko santé nag mënul xaar dañoo bëgg le président de la république mu réagir léegi raxas ñi fi nekk andil ñu délégation spéciale ay médecins yu bees tàq problème mu bi ñuy wax chirurgien bi ñuy wax benn yoon la fiy ñëw par semaine kon amuñu chirurgien 15 jours la fi ñu par semaine te bu ñëwee du fi taxaw rapport yi ñu koy présenté ak li am du benn beneen bi mooy analyse yi Moussa X day def analyse ñu jël analyse am jox ko Moussa Y jaxase analyse lañ fi nekkee fajuñu kenn bañ yéeg ñëpp la ñuy yàq kon ñi ngi woo Sénégal gépp ñu ngi woo waa OMS organisation mondial de la sante sante mënul xaar ñu ngi jégal waat bu baax jërë ngeen